yàlla leen yàlla may ak wér ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk te dara jotuñu yàlla ñu yàlla may ak wér te saxal ñu ci di ko jaamu te yàlla fekk loolu ay déwéni déwéni déwén te ànd ak kàttanub jaamu ak kàttanub yëngu yàlla mën na ko yàlla nañu ko defal mbokk yi ñu ngi ci weeru koor ku nekk xam na koor gi nga xam ne moom lañ nekk day weer la woo xam ne ay gëneelam kenn xamul nu mu weer la woo xam ne lees si mën a profitoo ba am ko ci bari na lool li ñuy jàngalee koor bari na lool waaye tey ñu jël lu am solo loo xam ne naka jëkk tey am solo waaye rawatina ci weer wii nga xam ne ci lañ nekk loolee nga xam ne képp koo xam ne tëwoon na la tey ab occasion bu rëy nii boo xam ne mën nga cee profité te amul kenn ci ñun lu dul ne soxla na te loolu mooy jéggalu say bàkkaar baal yàlla jéggal amul kenn ci ñun koo xam ne lu dul ne xëy na suba ba ngoon lu dul ne soxla woo nga sa borom bi subhaanahu wa taala jéggal la ciy bàkkaar amul kenn ku mën a taxaw fëgg ab dënnam ne damaa set wecc ci damaa mucc ci ci tooñaange yi nga xam ne moom laa séq ak borom bi wala moom laa séq ak sama moroom ci joxe ay àq ak ay matal ko kon nag war na ci ab jaam muy profité posé yu mel nii di ci dellu ci borom bi subhaanahu wa taala bare bare bare weer a woo xam ne ku ci farlu yàlla jéggal la mboolem bàkkaar boo xam ne moom nga defoon njiitu weer bii kon nag ñoo ngi ñaan ñun ñëpp ñu jéem ci farlu te luñ ci farlu rek yàlla nañu ko yàlla jégal mbokk yi bàkkaar day saa bu ko ab jaam defee am na lu muy bàyyi ci ab xolam saa bu jaam defee nga xam ne ñooy kutubu yu mag yooyu saxal nañ sax na ci sunna ne nit ki bu defee ab jaam bu jaam bi bu defee ab bàkkaar ngeen baal ma ala xasabi na bàkkaar ba toll lu tol noonee lay def lu mel na ab tomb wala lu mel na ab marqué ci xolam loolee nag lu dañ di yokk li fee jaam bi mu ngi yokk ay bàkkaaram yàlla nañ si yàlla musal waaye nag saa boo xamee ne nag ñaawlu na la mu def daal di rëccu daal di jéggalu borom bi daal di tuub yàlla daal di far loolee kon jëkkam na muy yokkee ay bàkkaaram la nga xam ne mooy tomb oo bii wala la nga xam ne mooy rëdd woo yi day yokk di yokk man naa dem ba feesu xolam bu feesee xolam nag xol boobu dañ koy tëj xol boobu yi borom bi si boppam moom moo koy kasteel boppam mooy xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa day mujj bokk ci ñi nga xam ne mënoo leen a waar boo leen yóbbu woon ci biir kaaba ga bi yëpp di leen waar ak di leen defal lépp loo xam ne mooy tax ñu jubit duñ mën a jub yàlla nañ si yàlla musal فوقدم فابيام تولي نابو لين تي موم نكوكي بتوبلي موي كلا بران على قلوبهم موي نيغا خامني سيني خول دافا كوم ولا سيني خول دافا خما خما يالنا ني وخي القران الكريم امنا سي نين ني ньо خامني خير نوي سيني خول داخ امنا سي خير يو خامني ليك دا تاج نوخ غير نجا واي امنا خول يو خامني كين مونو كو جوبنتي يالنا يالنا مسل كي داجي كي muy tuub bala muy yegg ci niveau boobu bu dee tuub nag yàlla di ko jéggal di ko jéggal di ko setalal ab xolam mën naa dema dem ba xol ba dara dara du fa nekkati lu dul ak leer rek waaye bu yàlla tëjee ab xolam nag xol boobee ak gëm yàlla du fa duggati moos waaye nag lii nga xam ne moo di ak kéefër aku caay-caay aku mbon du mas a jóg ci xol boobu yi mukk mukk kon nag loo lool yi lu mat a bàyyi xel la te li ñu si dimbali rek mooy saxoo di tuub boo xam ne xam na responsabilité bi mu am ci digganteem ak boroomam war na ko muy bañ di néewal lii nga xam ne moo di tuub di jéggalu lu baree baree baree baree ci mbooleem anam yi nga xam ne moom dañuy jéggaloo di tawassul ci al amal as-saaliha muy def lu baax ba noppi ne rukk ci suuf ne yàlla sab jaam a ngi nii yow boroom bu màgg bu kawe bu tedd bi man sa jaam bu xeebu bi nga xam ne du ma tus ci sa kanam man mi nga xam ne maa bari bàkkaar yow mi nga xam ne yaa mat li nga doon yow mi nga xamne antal ahadul fardus samadul ladhi lam yalid wa lam yulad yalla jéggal ma samay bakka su ko defee jaam boobu man na am yalla jéggal ko ab jaam du rëy ci kolom kanamu ki nga xamne ne dib sangam te sang buy sang yalla ay sa borom moy sa bur kon ab jaam war na di rukku ci kanamu boromam subhanahu wa taala di ko jéggalu ay bakkaram mbokk lu sa tar rafet rafet lu saw yaram yàññi yàññi lu sa col rafet rafet lu say compte bancaire fees fees saw askan lu mu kawe kawe ab jaam dong nga ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala léeg-léeg wéetal moom ci sa ruq ne ko yàlla sa jaam baa ngi nii dëkkee la tooñ waaye nii dëkkee di yaakaar sa njëggal yàlla sa jaam baa ngi nii baal ko kon sax da ci sunnaas yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi nee na jaam yépp ay tooñkat lañ waaye tooñkat yépp nag ci gën mooy ñi nga xam ne dañuy reconnaître seen njuumte di baalu di dellu ci yàlla ñooñu mooy nga xam ne ñoo gën ci tooñkat yooyu kon nag war na ci ab jaam saa bu toogee ab diir lu mu gàtt-gàtt ay bis ne mu jéggal boromam subhaanahu wa taala tuub war teefu bépp jullit la te bañ a benn bàkkaar te bañ a néewal benn bàkkaar sëriñ bi mi ngi jàngal ne lépp loo xam ne mënoo koo muñ ci safara lu toll nee na bu ko def ci bàkkaar kon bàkkaar jër de xeeb bari na lu waaye di xeeb ci safara mën na ko daayam bàkkaar amul bu tuuti waaye nag li nga xam ne moom ngay xool nattuwaayu bàkkaar mooy màggaayu ki nga tooñ màggaayu ki ngay tooñ ci ngay nattee sërëyaayu bàkkaar waaye boo xoolee tolluwaayu jëf ji te fàtte màggaayu ki nga xam ne moom ngay tooñ bu boobaa mën ngaa xeeb sa bàkkaar te yàlla nee na bisa ngi ñëw boo xam ne amul lu tuuti wala amul lu rëy lu dul ne nit jëf ko lu dul ne loolee dañ koo jóor ci kanamam mu di ko gis laa yugaadiru saxiratan wala kabiratan illa axsayha ma maa li hada alkitaabi laa yugaadiru saxiratan wala kabiratan illa axsayha bisa ngi ñëw boo xam ne kenn ku nekk la nga jëf danañ ne ko gis bisa boo xam ne kenn ku nekk danañ la takkal téere boo xam ne sa ripoo kaat moo cay nekk muy mboolem loo xam ne moom nga jëf ci dund bi kon mbokk sama borom subhaanahu wa taala dafa nekk borom boo xam ne dafa bëgg ay jaamam tooñaangee bari na waaye yi nañuy faral di ñu di daw di dellu ci li nga xam ne moo di ak te matale li nga xam ne moo di ay saatam mbokk yi nañ tuub dellu ci borom nañ amul dogg ci suñuy xol ne ñun kat ay jaam ne tooñ waaye fas yéeneetu ñoo dellu ci ab bàkkaar sëriñ bi mi ngi koy jàngale ci tasawuf de sixaar li nga xam ne mooy taw tawbatu nasuux na ngeen di tuub tuub boo xam ne tuub bu sell la mu mel ne dañuy jàngal la mooy tuub bu sell mu ne nga rëccu jëf ji nga xam ne mooy jëf ji nga def nga dogu bañ a delloo ci ci bàkkaar li nga xam ne moo des ci sa dund waaye tamit nga am yéene ci jamono bi nga xam ne moo ngay tuub loolu noonu nga koy tuub noonu yi nga koy tuubee ndax képp boo xam ne dafa sàgganee tuub ah tuub dana weesu de tuub dana wees am na foo xam ne foo jaam to to tollee day bu fa jaam tollee mën a tudd a tuub tuub nag fi muy mënee nekk dëgg-dëgg mooy jaam bi nga xam ne tooñ na waaye tey bi muy tuub dara tereewu ko dellu ci bàkkaar ba lu du ragal boromam subhanahu wa taala yàlla nee na innama tawbatu ala allahi lilladina yaamaluuna suua bi jahalatin thumma yatubuuna min qarib yàlla ñu gën a mën a baal mooy ñi nga xam ne lañ jëfoon dañ koo xamul réer a tax waye ginnaaw bi ñu dund ko rek ñu daw delu ci borom bi daal di koy jéggal waye wala isati tawbatu ya'maluna yacmaluuna hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu lana yàlla nee tu ñeelul ñi nga xamne dañuy def lu leen neex dem ba yegg fo xamne ne fexe jeex na ñu ngi tëdd ci lolu de wala tay ñak nañ kàttanu delu ci bakka ba ngi ne ñu ngay jéggul yàlla neena na yàlla du leen baal sama borom nag ci ak mbaaxam mi ngi fàttali ci alquran ne yéen ñi gëm yàlla tuubu ilallahi tuub leen dellu ci yàlla tawbatan nasuhan muy tuub bu sell ndax tuub bu sell googu yi mooy mën a tax yàlla jéggal leen seeni bàkkaar su leen jéggalee ba noppi da ca yam waaye da ngeen jëfoon bu nekkoon lu ñuul daf koy soppi def ko lu weex su ko defee nag yàlla nee na man na leen jaafayal àjjana joo xam ne lay nekk ci suufam mooy ay dex yoo xam ne dex xéewal la kon jaam bi saaboo boo xamee ne mooy nga man jaam bi saaboo xamee ne mooy naa amuñu dara lu dul moom lañ mën a def lu dul nag mooy tuub bu fekkee ne loolee ñuy def ab àq la boo xam ne yàlla lim ñu sant dañ caa gàttañ lu dara bu boobaa nañ daw joxe àq jooju noonu nit ki am na wax waxtu julli yoo xam ne julliwuñ ko nañ dem fay waxtu julli yooyee te soo a tuub bu fekkee ne loolee nag dafa nekk tooñaange boo xam ne dafa delu ci moroomi jaam yi bu boba ni ko sëriñ bi jangale summa al mazalimu atal qismayn amwalan wa aradan bighayra gayra bi sëriñ bi nim ko jangale moy toñangi mom dafa am ñaari xal dafa am lo xamne toñu der la dafa am dafa am lo xamne toñu der la dafa am lo xamne ne xet toñ la bu fekke na nag der la li nga xamne mom nga mom nga toñ mom nga toñ ci der bi wala moom nga tooñ jaam bi loolu daf da nga koy da nga koy sàkkoo dagan loolu lan mooy sàkkoo dagan loolu mooy ki nga tooñ nga dem ak tooñu alal am wàllan wa aaraadan tooñu alal ak tooñu der nga delloo ko bu dee tooñu lu mel na xasal jëwa ŋàññak fitnaa la gi ni mel loolu nga dem ca nga xam ne moom boo ko seetal nga jéggalu ko comme ni nga xamee ne noonu la ko imaam yi di jàngaleel bari kon bu fekkee ne tooñu alal la da nga koy jël nga delloo ji ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee képp koo xam ne am na àq ju dox ci digganteem ak moroomu jaamam ni ki na bor wala ni mel nee na nga dem delloo ko ndax bisa ngi ñëw boo xam ne day nee na dërëm amu fa diinaar amu fa dërëm amu fa diinaar amu fa koo xam ne dafa saaga woon moroomu jaamam na dem jéggalu ko doonte man na ko bañ a nettali koo xam ne dafa lekkoon alali jàmbur na dem delloo ko koo xam ne dafa jëloon lu mu moomul ci nit na dem delloo ko koo xam ne dafa séqal nit lenn te matalewul ak xam ni ki dëkkal nit dëkkal la ci am néegam ngeen waxtaan ba juboo set weer bu dee na nga ma fay nangam nga dikk ne faax def yëfi dëxët bañ koo fay ngir ne amoo doole moom amul pexe amul doole loolu bis bu ñun ñi nga xam ne ñun lañuy yaakaar ne man nañ dara ñu ñuy woo dañu boole ci àq yu mel noonu nit a ngi nii ñoo xam ne dañuy dëkk ci néegu jàmbur bañ fay dëkk xam nañ ni yoon di doxee xam nañ ne kuy dëkk da ngay joxe déposé doora door a door a dëkk ñu dikk tëdd fa weer yàlla dañ fay ñu naan déetuwaay ba mujj yàgg ñuy jëlal weer mujj gi ñuy jëlal ñeenti weer mujj gi ñu ne ko bu la neexee nga yóbbu ma koor loolu tooñaange la yoo xam ne képp koo xam ne nekk nga ci na la ne ëllëg yowmal xiyaam la ko yoral ci ay dollar yépp da nga ko ko fay te nag dollar amul foofu noonu xëy na danañ ci dikk incha allah kon mbokk yi ñu bàyyi xel tooñaange yi ñaaw yii nga xam ne day dox bis boobu nga xam ne bis la bu metti boo xam ne képp koo xam ne tooñoon nga sa moroomu jaam ëllëg nga war koo fay te amoo lenn loo ko fayee danañ jël sa jëf yu baax yi di ko ko jox di ko jox keneen di ko jox keneen ba mu jeex tàkk man ngaa dem ba yegg foo xam ne amatul dara lu baax loo mën a fayee kenn waaye nag ña nga tooñ ñuy jël seeni bàkkaar di leen ko di leen ko xëpp di leen ko xëpp ba mujj yow nga nekk koo xam ne سبيان دي ديسكوم نيكو سيرين توبا جانغل يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده موكي مي ام لو جوندي شي نبي صلى الله عليه وسلم موم ميغا خامني موم لا نيو يالا ديغال مي جوندي شي موم موكي بيسباي نون دي بو خامني كوفا امي اق دا فاي sama borom nee na ragal leen bis bi nga xam ne am mbugalam dafa tar lool bis boo bii nga xam ne inna zalzalata saati shay'un azim nit ñëpp ay yàq nit ñëpp ay tëj bis boo bi nga xam ne da gis koo xam ne dafa yoroon doom tiit ba sànni ko waaye da nga gis koo xam ne dafa boo xam ne dafa karaw ga daa ñuul mu tiit ba bi kon yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne dana fa xew tey képp koo xam ne am na àq yoo xam ne mataloo ko sa digganteeg sa borom wala sa digganteeg say morom danga ko fay yàlla nee na ci alquranul karim qul ya ibadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamia innahu huwa alghafuru rahim yéen samay jaam yi nga xam ne seen bàkkaar dafa bari ba ngeen jaaxle yéen samay jaam yi nga xam ne seeni tooñaan yi dafa rëy ba ngeen jàpp ne yéen ñii yowatu leen yërmande yàlla ah kay ba leen naa bu yàlla ak leen mën a jéggal aka leen a mën a baal daw leen ngeen dellu ci moom yàlla kat ku bëgg ab jaamam muy tuub la laa taqnatu min rahmatillah yàlla day jéggale bàkkaar yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nettali ab jaam boo xam ne ab agresseur la woon bandi la woon lépp luy bàkkaar def na ko di rey di rey ba rey juróom juróom-ñeent fukki bakkan ak juróom-ñeent mu daal dem ci ab làbbe ne ko boroom xam-xam nga dégg naa man kat damay laaj ndax dama doon ab bandi boo xam ne dama daan rey rey naa nag juróom juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent benn doom moo matal téeméer ndax suma ma tuubee benn doom moo ma tere matal téeméer ndax su tuubee yàlla dana ma jéggal làbbe boobee na ko mukk yàlla du la jéggal mu daal di mer ci tontin ba daal di koy rey moom faf mu nekk téeméer mu jóge ci loolu di dem di dem ba yegg ci keneen daal di koy laaj nettali ko li mu nettali woon kële ak bi ci mujj mu ne ko waaw yàlla day na laa jéggal bi nga xamee ne wax na lool yi mu a ko waaye nag faaw nga génn fii nga xam ne fi nga doon defee ñaaw teef yi nga dem ci dëkk boo mës ta defee benn bàkkaar nga jéggaloo di fa yàlla kookee yàlla dogal mu génn dëkk ba rek daal di faatu malaaka yi nga xam ne ñooy malaaka yi safara yi dikk kii ab tooñkat la woon ñoo koy jël yóbbu safara ñii nga xam ne ñoo di malaaka yërmande yi daal ne kii day dafa amoon yéene tuub ñoo koy jël yóbbu àjjana yàlla ci maandoom ci yërmandeem daal ne ay wa leen bu gën a gàtt rek fa mu jëmoon wala fa mu jógee ngeen jëwal ko foofee bañ demee ba nga xamee ne ñu na natt yàlla wëlbati suuf sax daal di jege lool fa nga xam ne fa la jëmoon malaaka yërmande daal di koy jël daal di koy dugal àjjina ab jaama ngi nii xam ne dem na ci kaaba ga ab bandi la woon daan def lu bon ma ngay wër kaaba ga te naan yàlla jéggal ma xam naa ne sax doo ko def yàlla jéggal ma xam naa ne sax doo ko def am ku jekk-jekk ne tàpp-tàpp ci am mbaggam daal ne ko waay waay tey ngaa noppalu ba nga njëkkee wax ne بوغدا نجيبلون اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب